Ndella nag mer na te nee na génn na ci diggante ka Penda Wurus ak kii di Olay Anta képp ku kontaan ci décision bu mu jël rek duggal ci commentaire yi mayal ma ay kor yu xonq cur kii di Ndella yéen ñi may laaj naan ndax say dinañ ko mujjee may ca Ndella waaw wala déet da ngeen cee bëgg xam dara jël leen seen temps tey laa leen di leeral lu bëri li nga xamante ne nar naa xew ci épisode 70 bii di ñëw laataa loolu dama leen di tegal benn vidéo bu am solo bi nga xamante ni ñu bëri ci askanu Sénégal ñu ngi koy partagé ndax njariñ dongul boo ko mënee na nga ko def ndax lu baax ñu ñëpp a ko bokk nañu dem te ñëwaat ma wax leen lan moo nar a xew bi sa diggante ak seet am na sax ñu ne yow seetu da da ngay seetal nit ki ba wax loo xam ne ñëwagul. waaw seet moom. Mhm. suñu borom may nañ ci. man rek. Mhm. maay seetal nit. Mhm. wax la loo xamante si nii. eggugoo ci. wala sax loo xam ne weesu na mm-hmm. wala loo xam ne sax yaa ngi ci yaa koy jun yaa ngi koy dund jamono ji hmm? seet ba ma koy man maa ngi ci daara ja doon gone gu ndaw mm-hmm. di ko def mu yéem waa daar ja mm-hmm. mu doon xam-xam boo xam ni yàlla moom ko baaxee dëgg la seet li ma ci yor ci ay fonction seet bëri na lool hmm? benn bu mu la mu doy sëkk allahu am na ñoo xam ne danaa damay masik leer laa la wax di ji bi damay gis mbooloo mi topp ma la fois passée nga wax ma ko nga ne mbooloo ma topp ñu topp ma ñëw ngir dara de dama leen di wax ñu si teg seen bët. waa Didier. Mm. nit ñi moom fu dara du duñ fa nekk. dëgg la. képp ku ma ñaanal da nga ñëwaat. Mm. ndax da nga gis sa bopp li ma lay defal. te boobaag léegi téléphone bee ngi sonné naan kar kar rek. waaw loolu ki ñaay la mais am ma am ma jot temps jamono jii di leen ndax damaa nekk ci émission. ah. Bayra ak Noob bokkuñu. Ah. la ma la utalee. Mm-hmm. moom. Mm-hmm. dija sama yëf la. amut benn sëriñ bu ma ko dàq. képp ku ma noobal. jàpp far force. allahu waat naa ko waatate ko. képp koo xam noobal naa la te jàpput. la ma la ma envoyé woon. jëraat ko. amul amut benn sëriñ bu ma ko dàq. waat naa ko waatate ko. noob duma ko def muy asek. la ne la. amut benn sëriñ bu ma dàq nopp. la ilaha ki ma gën a soxla nag ki nga xam ne moom daa weddi nopp amut. kooku nga gën a laa gën a soxla ndax su ma su ma ko defalee bis boobu lay gëm ne nopp am na la wala góor gi nga xam da ngaa bëgg jigéen bëgg kaa takk mu am ay jafe-jafe wala nga bëgg mu bëgg la buñ diggante sa xol dina sedd comme xaj ni mu toppee boromam bu dee jigéen bu dee jigéen noonu la jigéen ñoo xam ñu ngi ci néegu sëy wala bëgg a jóg ak seen jëkkër incha allah buñ déggante seen xol dina sedd mel ni rek soo kër gi di